xale jigéen boobu nekkoon fii lu ne dégg ngeen ko waxal ma ci lu baax su waxee ne dama ko doon fay muy daanu day waxul dëgg day fen ay waay weeru naa wuy sanku na wuy ay dama àdduna yàqu na ay waay suuf na ay waaye yàqu naa ay xale ba mu ne day def si kenn mu ne laa ko waroon a bàyyi ay waaye ba bëggee def si kenn mu ne maa ko waroon a bàyyi ay waaye maa koy tiital di tiital doomam ay waaye maa koy tiital di tiital doomam ay waay waay waay waay waay ba bëggee ñëw si kenn mu ne laa ko waroon a bàyyi waay waay waay waay waay yàqu naa ay waay sànku naa ay waay yàqu naa oh waay waay tey kàcc yàlla def na ne euh, contrat am bi gis naa ko contrat bi nga xamante ne ba muy ñëw fii moom sax dama ko dimbali cinq cent mille la fay te cinq cent mille motul moom ak doomam kenn ku ne cinq cent mille la fay ma dimbali lañ faj leen ba ñu wér macha allah ba mu ne ma dafa bëgg a liggéey sëriñ bi recruté ma ma daal koy recruté di ko fay quatre vingt mille mu dem ba ci digg bi ma yokkal ko di ko fay cent mille francs macha allah muy saa yu may ñëw mu dugg mu may waxal di ma commentéral di di ma di ma reportage di wax ma koy jàppale biir ak biti mu wax ko ba àdduna bi yëpp dégg ko macha allah di nuyu euh, ndax macha allah euh, yàq na suma der euh, jimboor yi aussi ñoo ngi koy sant di ko gërëm ndax gëj naa ko gis war na mat ñaari at jimboor yi sant naa ko gërëm naa ko ak soxna Ndey Guèye parce que dañu maa seedal te yàlla tax jimboor yi ñoo màggandoo jàmm gan jak saaw ndax wax naa leen man jàmm gan dëkkoon naa fa seedal na ma seddal bu rafet ak ndey gay ñoom it nañ ma seedal bu rafet yàlla moo leen di fay parce que li ñu gis rek la ñu wax nañu bàyyi loolu ñun senegal ànd ak yow suñu demee ba mënatuñu ànd ak yow ñu daal di wër di la yàq loolu mooy suñu problème ndaw si amul lu ma ko defaralul ci teraanga su ma taalibe amul lu ñu ko defaralul ci teraanga su ma jabar madame Sow day dem Osan ba ndugg jënd lu ne meew amul lu mu dul jënd ah mu ne ma sëriñ bi booy dem nga yóbbul ma lii soxna si ndax yërëm ko alseeni mii ci boppam dimbali na ko da koy jàppale sama taalibe yi dañu koy jàppale amul kenn ku ko dul jàppale ngir man su laalee euro man la bu laalee dollar man la bu laalee pound man la ma dimbali ko yërëm ko te yàlla tax waaye xam naa ne kii du nit ku baax xam naa loolu dama ko buggoon defar rek waaw man xam naa ne kii du nit ku baax waaw fu mu nekk nii nag dafa collaborer ak suma ex président bi nga xamante ne moo nekkoon France amul lu moo ko defalul biir France su liggéeyee France man maa tax su su liggéeyee ci kiyam euh, bu nekkee ci gaar gi man maa tax juróom benn nit tooñ nañ ko ma duma leen ci biir gaar gi ojo yëpp a ngi fi waaw ndax lu amul seede lu amul seede rek man lépp lu may def en preuve laay def ak suma benn rakk ki nga xamante ne maa ko yar defal ko lu ne takkal ko jabar amul lu ma ko defalul ci kaw suuf ci ci àdduna man rek lay bañ a gis yéenewu ma jàmm amul lu ma ko defalul takkal ko ñetti jabar waa Sicap Mbao xam nañ waa jàmm gën Jaksaaw xam nañ ba muy nekk mbër ma encadré ko ñëpp xam nañ ñëpp xam nañ maa moom ñoo ndekk bo ñoo bokk ndey baay mu bind fii suma tur amul lu ma ko defalul ci àdduna tey man rek lay bañ a gis waaye bu soobee suñu borom. àdduna du neex ba nga sut ma àdduna du neex ba nga raw ma ndax yàlla lim ma may yàlla mayu la ko da ngay daw ba sonn li ma am ci ci kaw suuf doo ko am bu dee alal maa la ko ëppale bu dee xam-xam maa la ko ëppale bu dee barke maa la ko ëppale su ma ndey chaque jour mu may ñaanal ñëpp xam nañ sama yaay chaque jour daf may ñaanal chaque jour ma ànd ak moom fépp fu may dem mu topp ma fu ma toog mu toog suma wet ñëpp di gis photo baa ngi nii tourneel foofu ba mu yëkkati sama loxo waxuma ko mu yëkkati suma loxo saa saa yu ñu toogee mu daw yëkkati suma loxo te moom gis musuñu gis yaayam yëkkati loxoom comprendre nga man kenn mënu ma yàq sama yaaya ngi nii ajaratu Mariama Kamara bu lekkee man la bu wëree man la lépp man la bu dee ñaan dama am ñaanu papa am ñaanu ndey man kenn mënu ma yàq nit mënu ma yàq xeex bii du fii de 19 moo tàngoon unité 19 xeex bi comme tulleeg màlla la woon dem naa ba génn sax di jàmbaarloog waa koñ bi pour pour xeex ak ñoom face à face corps kon xam lii du xeex Alseyni fekkee na temps yooyu xale bu ndaw la kon dama bëgg rek ngeen dalal seen xel yéen mule mule yi yéen sénégalais yi am na ñu ma bëgg man ñi yëngaluñu ma mais da ngay gis ndeysaan dafa am nit ñi dañ lay woo di wax Ibou Sini laay sax woo na ma tey maa ngi koy nuyu à suma xarit euh, ñu bëri woo nañ ma ay kilifa woon nañ ma macha allah Euh, dama bëgg rek ngeen dalal seen xel euh, Sénégal moo demee noonu dangay gis tey nit ànd ak nit ne ko yow a yow yow a bu àndul ak moom suba mu yàq ko waaye man mu Moule kenn mënu ma yàq xanaa as toq bi ma liggéeyal yàlla ak yonente bi loolu defe naa ne wax dëgg yàlla ñu alku ñii mënuñu yàq loolu barki démboo njaay fii laa tànt fii ci kanamu àdduna bi wàccee cent onze million laa wàccee ànd ak ñoom jënd ceeb ànd ak ñoom jënd diwlin jënd suukar jox ko jaamu yàlla fii laa nekk di joxe ba minuit ndoguwuma maag suma yaay maag ajaratu Mariama Kamara fii la ñu toog ñëpp dem ndogu ñëpp ndogu ma toog fii ak suma yaay ndoguwuma xanaa bu dee loolu kese man yàlla du ma seetaan fii laa toog ak suma yaay nga woor ba minuit ndogu woo loolu amul fenn fii laa toog ajaratu Mariama Kamara maak moom ma ne ko nañ dem nga nga ndogu mag nga mu ne ma déet mu lee joxe rek continuer nga joxe rek man amul problème macha allah. Euh, laylatul xadr bi tamit fii laylatul xadr bi tamit dañoo ndogu kër ga rek xëd xëdduñu reeruñu xëdduñu fii la ñu toog ba fajar continuer woor maak ajaratu Mariama Kamara defe naa ne lu ne fàng kenn du ko jeex booy da ngay sonal sa bopp rek booy ñëpp xam nañ la. soxor ak iñaan bi nekk ci yow dafa yàgg ci yow man munoo ma fay munoo komplo ak ay nit ngeen fay ma man damaa tekki ba pare damaa tedd ba pare man bu ma neexee tey ma bàyyi faj waaw yow da ne man jànguma yow génneel befem sa befem xam nga tontuwuma sax da ne man jànguma bien vrai jànguma waaye ñiy jàng maa leen jël di leen di fay parweer sama kër fii ay ay borom xam-xam rek laa fi jël di leen fay ba pare di leen orienté dinañ la defee leen lii waxee leen lii journaliste yi yi ma fi mës a jël ñëpp man maa leen di wax def leen nii kon soxor baaxul gis nga bu ñu zalu famille yàlla mooy xool famille jiital ci nit bul soxor yàgg nga ma xeex dajale nga booy unité 19 yëpp nga leen daan fay nga toog nekk pontolaa di ma saaga di ma xas di ma wax lu ne boo yooyu tey yëpp joge nañ foofu léegi nag dem nga ba amatoo loo fay dem na ba fa am amatoo koo fay léegi nag nga ne xaaral nga toog yàq yàq sa mag munoo yàq sa mag nit ñi xam nañ la waa jàmm gën jak saaw yëpp xam nañ la Sicap mbaaw ñëpp xam nañ la bàyyil soxor man munaloo ma dara sa xol dina yàgg bon ci man parce que da ngaa zalu buggoo ku am lu baax maa la yar maa la dimbali takkal la ñetti jabar Sicap mbaaw jënd sama oto jox la ngay dawal naan gung gung gung gung xale bu jigéen boo gis nga nga jël ko waaw ñi ñi xama waa si kambaaw xam nañ li nga fa def de ma ma utal fa suma yaay appartement mu dem jëlee sama yaay si kambaaw parce que tuuxi duuna yu mu def si kambaaw ak toj-toj yu mu def si kambaaw mu jëlee suma yaay si kambaaw dem dem làq ko feneen defal ndànk dëkk bi li nga fi def ba tey ñi ñi xam nañ ko kon soxor ak iñaan loolu moo nekk ci moom man defuma ko dara guddeel naa ko ba bëccëgal naa ko man suma papa ba mu gaañoo 2005 ci laa gàddaay dem ci àll ba ñu seen bopp dara lu ma liggéey ma jox leen suma rakk yi muy suma rakk yi muy suma yaay ñoom ñëpp ma doon seen baay faal di daw guddi di daw bëccëg su ma amee mill francs jox leen ñu lekk su ma amee junni jox leen su ma amee ñaar fukki junni jox leen ma nekk ci àll bi di daw sonn naa ci sama famille sonn naa ci suma yaay sama yaay dama sonn ci moom ba sonn ci sama papa sama papa dafa lekk suma ñàkk wax naa leen dajale naa ay feeraay dajale naa ay ay ay ay ay përëm ay xànjar suma papa jamono yooyu moo ngi dund dëkk bi dafa métti woon may liggéey garage mécanicien dajale ay feer di wër maag laay mbaras di wër ay weñ di ko peese xaw ma jamonoy kilo ñaar dërëm feeraay yooyu yëpp ma jël ko yóbbu suma kër suma suma yaay togg suma papa lekk suma yaay lekk sama rakk yi lekk man dama am barke man dama am barke dama yang maanaam dama dama ñàkkal suma baay pap sama papa ku mu doon dóor kay ñëpp xam nañ ko yow ak sama papa comme xaj ak mu sama papa musul a bëgg bu la dugalee métier nga doo liggéey man sama papa algaasi mot na seede su ma néeg laa ko doon bàyyi ma ne ko paa bi moo ma woo nekk leen ci néeg bi fii ma jënd leen ataaya ak boisson ak lekk ma jóg dem ànd ak suma papa ci liggéeyam dimbali ko kon soxor baaxul sa mag noo ko fay ba aduna di jeex barki alxuraanu karim ba aduna di jeex maa lay raw parce que loolu man yàlla def ko def ci man maa la ëpp wërsëg maa la ëpp barke ndey ëpp la barke baay ba pare ëpp la xam-xam yow amoo xam-xam barki Dembo Ndiaye lañ la doon tëggal fii jéego dana ma yëngal dana ma yëngal taj temps ngay yëngal sa ñaari taat yi xottu taat yi barki Dembo Ndiaye la man bu ma fontoo man sa papa respecté ma yow am nga xam-xam liggéeyal nga wone mais nga topp sa mag rek di ko yàq sa noonu mag boo gis nga complot ak moom yow am nga xam-xam wone li may wone man maa ngi wone preuve maa ngi faj ay nit ñi ñi di ma témoignaasal yow fexeel nga wone su ma génnewee big mu lu ma wax rek mu attaqué ma lu ma wax génne naa fii big mu ne big yi dafa daanu day fen big yi nan la daano bu ma génnee porte-clé mu fen mu ne porte-clé yi dafa daanu lu ma produit bu ma génnee rek nga gis ko mu saboote ma yow amal jom tuuti maccudo yow jaam nga maccudo nga sa doom yooyu ñaari doom yooyu nga am yëpp maa ko ngénte abu abu abu jibaa ma may ko 7 million sa ngénte doom mu fàtte gitaaram foofu abu jiba bu déggee loolu mun na ma seede ak ñeneen ak ñeneen yow amul lu ma la defalul tey yow yaay yor paaka bi nga xamante ne yow yaa koy daas di ma rendi waaye doo ma rendi man mënuloo ma dara mënoo ma yàq dama tedd ba pare ko muy woni jawdi ko muy woni jamaa ko muy woni kaalisi yow danga ma yàgg xeex waaye ba tey amoo dam hmm? depuis pentola yaa ngi xeex ba tey lan moo réussir yow fi nga a jënd kër damaa soxla foofu kër gi jàkkaar terrain bi jàkkaarloog sa kër moom laa bëggoon jënd dama bëggoon jënd foofu noonu def ko salle terrain bi jàkkaarloog sa kër dama ko buggoon jënd mais dafa jaayul ma wan ne la man maa la gën a dee te bu bu ñu gisee terrain bu bu dend ak sa kër buy jaay dama koy jënd tabax ko duma man fi nga dëkk soxlawu ma dëkk foofu man ay almadi laay dëkk ay ay ay virage yaa ngi dégg ay jàmmalaay jàkkaarloo géej gi fi nga dëkk tey suba suba ku fa am terrain bu dend ak këram na ñëw wax ma ma jënd terrain bi am na su benn taalibe bu fa nekk moom may utal terrain man bu ma amee terrain sa wetu kër dama koy jënd def ko salle de wane ne man fi ngay dëkk du àdduna du neex ba ma dëkk foofu waaw kay waaw li nga jote triande nit ñi xam nañ ko yow yaa dàq triande fi yow da nga xam dara da nga mës a ñaanal nit mu nangu yow ana yow da nga mës a def preuve bàyyil soxor ak iñaan yow mosoo ñaanal kenn mu defal la témoignage sa tànk mag rek nga topp maanaam daal bu ma sëggee rek nga for suma tànk gis nga taalibe yi tey ma gën a bëgg suma association internationale daaru laahi kuy dugg cent euro ngay joxe yow dinga nga dund ba dee doo am loolu fu mu nekk ni international booy dugg si association bi cent euro ngay joxe yow looy soxor yow am nga xam-xam mais liggéeyal nga wane nit ñi waneel preuve comme sa mag yaa ngi wax sa mag xamul dara mais waneel yow naka maag yow la ñuy dundee yow nga ne yow yaa Xalifa Soundiata Keita te man maa la mag te ñoo bokk ndey ak baay ba pare yow mais nan ngay mën a nekkee Xalifa Soundiata Keita sama kaw jàmm gën jag saaw caaro yi jóg leen ngeen wax ak ci ki kii barki dem boo Njaay lañ ko doon tëggal fii jeego dana ma yëngal dana ma yëngal taj temps fii muy fecc di yëngal ñaari taatam tey mun na toog naan ay poom ay créatine ñas gi ñas gi gon xam na ñas ay proat ay protéine laa ko daan jëndal protéine muy naan ay wave ay gel volim loolu moo ko ëffloo amul doole waaw kon soxor baaxul man musuma toog di la yàq man lijjantiwu ma la yow yaa ma topp koo xamal ne ne jote naa ak moom nga récupéré ko pour xeex ma waaye di nga di nga di nga xeex ak man ba sonn ndax man tedd naa ba pare wallaahi so waaw man changé wu ma sama sant jaayu ma suma sant baay dama respecté suma papa Soundiata Keita suma maam la waaye Keita gënul soow su Sunjata Kayta suma maam la te boo xamee njata man la man maa demoon wër di wër di laajte ba xam ne ne ñun ci famille Sunjata lañu bàyyil zalu bi da nga soxor te sa jabar bi nekk si sa kër nga dimbali ko kooku sonn na portable bu baax sax mënu ko am yëre bu baax sax mënu ko am bàyyil zalu ji waaw iñaan bañ sa rek di ko yàq Sénégal ngeen xam loolu du tontu sax nag waaye foog ma wax daf ma bañ rek defuma ko dara maa ko yar yar ko dimbali ko lu ne jàppale ko mais daf ma bañ kese da nga sa xol nag dina dina sa xol dina jeex mu naan dañ ma tëjoon kaso moom ñaata yoon la ma yóbbu gendarmerie yóbbu na ma ñetti yoon gendarmerie benn bi maa moom ñoo fanaan foofu parce que dañu egg gendarmerie mu sosal ma foofu mu ne dama ko def menace de mort ma ne ko day fen day kàcc ma ne ko defuma ko menace de mort pour tëjlu ma moom tenté na trois fois xaw ma quatre fois pour tëj ma kaso benn bi maa ngi moom la ñu téye foofu gendarmerie euh, parce que daf ma sosal ba pare ma ne waxul dëgg ñu génn mu saaga ma mu saaga ma pour bëgg a bëgg ma gars yi téye ma foofu mu saaga ma rek ma attaqué ko nar a jote ak moom yaa ngi dégg gendarme boobu noonu euh, ne kon yéen ñaar dañ leen fi téye ñu fanaan loolu ñu foofu maa moom ba ci suba ba ñu ba ñu fanaanee ci biir moom muy xaran ma ne kii kii mbaam la maa ngi yow yow yow fexe nga ba ñu indi ñu fi nga bëggoon ma tëjlu maa ngi yow far ñu fanaan fi léegi yow yaa ngi nii muy tëdd naa mu naa ma ne gis nga kii kii du ma morooma barke alxuraanu karim bu dee li may wax du dëgg li may ut ci sama fay yàlla bu ma ko am muy xaran mu naa xoo xoo ma ne ko yow yaa ngi ñu indi fii ba pare nga bëggoon ma tëjlu far maak yooyu yëpp ñu fanaan fii nañu bàyyi soxor yow am nga xam-xam liggéeyal nga wane sa preuve mais looy toppee sa mag di ko xas di ko saaga ah yow danga yabaate waaw di ma saaga man du ma sa morom lu mu dee dee dee dimbali naa la jàppale naa la wax dëgg yàlla sa doom yooyu nga am sa beneen doom bi clinique clinique Rahman man maa fayal sa jabar un million cent clinique Rahman péridurale soxor baaxul àndatuñu kay war nga ma doxal rek mais bu ma yàq man munoo leen ma yàq wala da ngeen yaakaar ne man. Euh, da ngeen ma mun a yàq sénégalais nañu bàyyi loolu soxor ak iñaan baaxul cerno yàlla moo ko defar man yàlla ba mu may defar programme woon na dinaa am ay noon programme woon na dinaa nekk ay nit defar leen ñu ñu war ma loolu yàlla xam na loolu man it xam naa ko man xam naa loolu xam naa ne trop tard su ma ànd dina am ñu gore waaye dina am ñu dem man xam naa loolu moo tax loolu naqariwu ma mais booy bi daal daf ma toppee mboora waaye nag seetaan leen ko moom amul lu ko neex dundam neexul barki Dembo Ndiaye ma ne dafa day loué oto dafa loué oto bi dafa am dafa am client doo leen gis pepp ci këram man ñi ñaa ngi ñëw ñi ñaa may woo man may sëriñ buy encaissé ay millions man ay millions laay fayee ko parce que damaa dama damaa wane ay preuve dañu bàyyi loolu. keneen ki ki fi doon liggéeyee yéen ñëpp xam ngeen ko gis ngeen lum ma yàgg di waxal ci wax yi baax gis ngeen lu ma yàgg di waxal. dafa jël max maxfuus bi xam ne ne max maxfuus bi munul sotti parce que dafa ne max maxfuus génnul ma fen loo ko max maxfuus fii liggéeyloo maxfuus léegi mu ne déedéet ah dil maanaam euh, dil boobu du dem xaaral ma ne daf ma doon fay may daanu loolu la wax de te xam nga ne loolu waxul dëgg contrat yaa ngi fi yàlla def na ne sax contrat bi gis naa ko ndax man képp ku may faj damay signé ak yow contrat ma denc ko parce que dama xam nit ñi da ngay faj nit tey suba mu wëlbatiku nekk sa noonu pourtant wax naa ko fi ay temps yi bari waaw kay macha allah di sant suñu borom rek ngeen xam ne ne ndaw soosu euh, waaw ma wax leen nag problème bi yëpp laal la ndaw si lan mooy problème am euh, ndaw si dafa ma teg bët benn euh, dafa teg bët ci suma alal day tëdd këram di daanu daanulu di def ay ojo yi nga xamante ne di wax ne takkal xale bi Thierno Moule Sow takkal xale bi xale bi dafa baax xale bi dafa am leer xale bi boo ko takkee da ngay yokku man sax yàlla xam na ne barki alxuraanu karim alxuraan moo tax may wax man du ma dëgg du ma dugg whatsapp am madame Sow moo dugg whatsapp am déglu audio yi yónnee ma ko ma déglu ko ma ne ah kii jarul topp xam nga ne kii madame Sow kii dama ko seexlu barki alxuraanu karim yàlla moo tax madame Sow sax man moo ma woon audio yi man duma ma wat whatsapp am te bu ma duggoon léegi ci whatsapp am ngeen gis audio mi man du ma liir ay audio barki alxuraanu karim man du liir ay audio parce que tellement dama xam ne ne kii jubul te trop tard dana ma war te bu ma waree dina xool li ma yàqee day tëdd néegam di def ay ay vidéo yi ñaaw di ma charmer tëdd di naan jinne bi naan ay sama gel dafa tooy di wax ay wax yi ñàkk teggin ay wax yu saay-saay yi nga xamante ne di ko di ma ko yónnee sama whatsapp man duma ko liir sarme na ma gauche sarme na ma droite faalewu ma ko xool na góos xool na droite faalewu ma ko léegi nag nangootul ñëw si liggéey si ma ne Alseyni waaw kii lu tax nanguwul ñëw yaa ngi dégg su ma ñëwee fii du ñëw parfois day toog une semaine du ñëw parfois day toog une semaine du ñëw di wax ay wax yu ne ma ne Alseyni woo leen réunion képp ki nga xamante ne nanguwul ñëw wala képp ki nga xam ne léegi damay def par journée waaw ba ma damay def par journée ci la keneen ku ñuul ki bàyyi comprendre nga parce que ñoom dañ daan toog ay une semaine deux semaine du ñu ñëw yaa ngi dégg ba pare bëgg di bëgg di fayeeku ndaw si ma woo ko sama kër ñu def réunion ma ne ko mun naa la may ñaari fan yow du liggéey waaye yeneen cinq jours yëpp da ngay liggéey mu ne ma waa amul benn problème Euh, incha allah dinaa dem waxtaan ak sama rakk bi après dinañ ñëw loolu de lañ waxtaan ak moom moo jékki-jékki toog sama taalibe bu mu xam mu woo la yàq yàq sama der am na ku ko defoon unité 19 jigu ko daf maa sarme ba sonn wax dëgg yàlla faale wu ma ko du ma du góor guy foo parfois nga mu def si benn audio këram tëdd ne xale bi euh, ku am sutura la euh, loo loo wax ak moom wala loo def ak moom sax du ko wax kenn ku am sutura la calculer muy wax ay wax yooyu di wax ay waxu sarme lépp audio yëpp a ngi fii waaw audio yëpp képp ki nga xamante ne day weddi rek après mun nañ la woon rek nga déglu moom jëm na ma sarme guddi ak bëccëg man du ma sëriñ buy foo du ma moy du ma moy yàlla waaw man du ma moy yàlla ndax yàlla lu ma defal leer bi nekk ci ma ak baatin bi nekk ci man du ma moy man yàlla def na ma du ma nit kuy moy léegi nag loolu moo ko naqari mënatul maanaam munul munul mu munul am munul moy fii munul am munuñu ko takk léegi mu ne xaaral ma dem yàq ki ànd ak ay noon barki Dembo Ndiaye ba muy saaga booyee man loolu sama yoon nekku ci moom moo doon saaga léegi moom dafa collaborer ki nekk France mooy ancien président bi nga xamante ne dafa sàcc xaalisu taalibe yi kooku <laughs> amul lu moo ko defarul man moom damay defar nit ba mu baax rek mu dem waaw loolu yàlla la de euh, yàlla la yonente bi moo ma gën foofu yonente bi lu mu amul man munu ma ko am mag ñu baax ñi ñi fi ne li ñu amul munu ko am ndaw si daal noonu la demee sarme na ma ba sonn faalewu ma ko léegi nag loolu la mu ne léegi daf may yàqal gannaaw léegi liggéeyatul ci kër gi bu bu maanaam bu ko sañoon du du fi gis pepp nit ah, actuellement loolu la bëgg bëggatul kenn ñëw ci kër gi bëgg na dégg Thierno Moule Sow daanu na bëgg na dégg na Thierno Moule Sow kenn ñëwate ci këram baaba loolu ko fenaande Thierno Moule Sow munoo leen ko yàq nag moom ba ma xamante ak moom motul ñaari at yàggul dem naa fi luuma Kaolack dem naa fi luuma Besseyaawo ñaari yoon su ne dama ko doon fay muy daanu day fen awaa ngi ni xool leen ko xool leen xale bu jigéen bi tournel ci moom dinañ la indil ba muy njëkk a ñëw fii vidéo mi kii sax dafa fay ba pare dolliwaat ndax damaa sonn ci moom nag ma ne ko awa sonn naa ci yow carrément yow ñaata ngeen ma njëkkoon fay awa fay cinq cent mille. cinq cent mille. après sa mag bi dolli ñaata un million cinq cent. waaw waaw parce que fekkoon nga sonnoon ci man. waaw waaw deux millions la fay. deux millions waaw sama frère bi après ci la la woo. waaw tamit parce que dafa gëmoon ci yow. dëgg la vraiment woo la après. mu ne pare naa sax pour dool parce que ñi sama sama yaay wax na ko yow ni nga sonnee. billaay ci la ñu yokki waat un million cinq cent. waaw après dool waat si cinq cent. muy deux millions. waaw vraiment tamit mooy ni ma ko wax sànq rek du ma xool sax li ma fi fay wallaahi parfois da ngay ñëw sax dara yëngu sax nga mujjee am kersa dellu si waat parce que da ngay gis ni mu sonnee ci yow mais day fekk li nga yor moo la sonal. moo bari mënoo toogaale ak moom moo bëri. mais wallaahi azim suñu borom rek moo tax may wax man du ma naafeeq parce que ma gëmee fen may jàpp ba jeex billaay li muy wax nii sax dama metti gis nga ni mu ni mu toogee laa toogee nit yónnee ma video si wax ji kii nekkee si dëkk bi sama téléphone dama tontu boromam ma ne ko ma ne ko parce que maak moom daje nañ fa dégg nga ni da wax rek te yàlla tax de daje nañ fa bu muy ñëw ñun gis nañ ni mu mel parce que ku ne ba ngay ñëw fii ni nga mel tey ak ni nga mel démb wute na da ngay wax te yàlla rek tax parce que yàlla rek moo fi ne ñëw ma pour neexal kenn comme ni mu ko waxee parce que fay naa fi mais mënu ma ko fay donc man vocal yaa ngi nii dama tontu bor ma ne ko man lii duma ci sax tardé sama bopp man sama problème boobu dama day kii day fen parce que xam nga lu tax ñun daje nañ fa bu muy ñëw ñun ñëpp gis nañ ñu mel gis nañ changement bu ci moom kon ni da wax rek ko yàlla rek tax mais su ne kii day fey ay nit day ay kii day fen parce que comme mënu ko waxee ñun ñëpp ay contrat lañ fi fay. Hmm? mu ngi ni ñaari yi ma fi def yëpp mu ngi dama toog mu signé ko. Ah, waaw kon soo ne day fay nit ñuy daanu ñaari million man danaa ko fay nit liquide mu ngi nii. après ñu ne moom dañuy fay ñun ñuy daanu. man liggéey laa wàccee enchaîné kon ma am jot di keneen ak keneen tamit ay contrat yu leer noonu lañ ko waxee comme ñu ngi nii mu ngi nii te ku ne sa tour da def sa tour ah, signé nga signé kon am na loo xam ne lii moo tax comme ni mu ko waxee rek nit sooy soo àndi ak moom di ko bàkk démb ñëpp di dégg kon soo toogaatee di wax lu ñaaw amanaam sax da nga war a xalaat ak sa xel parce que mën nga nax ñenn ñi de peut ñenn ñi ñi nga xam ne loolu lañ doon xaar mais ñi nga xam ne gis nañ te dund nañ xam tey jàmm bu ñu am nee naa sama yaay moom ma doon andi ñoom ñëpp du ñoo ngi nii sama yaay dafa demoon ba jeex tàkk mu ngi nii dégg sama frère sama sœur dafa arrêté woon jàng parce que amuñu ku ñu desal kër ga. billaahi sama yaay tey soo déggee ñëwatu ñëwul sa parfois jaar ziar ko suñu kër kenn desu fa. parce que man ñaar ak laa am kenn ki voyagé na kenn ki moo nekkoon kër ga kooku muy jàngee Thiès un an jàngul ndax sama feebar ak lu comme ne la man àndoon naag lu garaaw kon nit waxal soo mënul waxal nit ki lu rafet ngelawaay su fekkee yow yàlla rek moo la tax a jóg kon bul toog di di wax lu am amut kon lii moo tax comme ni muy waxee rek dangay defal nit à la fin boromam après bett la sax. gaa du tontu comme ni ko mais parce que neexul si xol nañu waxal to yàlla rek tax neexul si xol te man noonu laa tontoo ne ko lii man pour man kii dafa am jot dana mos a noppi ñu ko fi defoon yëpp ñëwaat nañ taaju sa ay tànkam kon moom na woyal rek moo la ko parce que soo ne nit ki dama koy delloo ginnaaw da ngay sonn yàlla moo sàkk nit lim bind si jëw moo ko bind eh, comme ni mu ko waxee ay nit bokk nañ daak bàyyi mais yàlla mooy may ku ne man ki ma bokkal nag bàyyi sama rakk la moo ma fayal fii anamu pourtant day yokku de wallahi azim day yokk parce que xol bu rafet mooy nit su ko neexoon du ko def ci man xaalis dafa neex de mais ñoo bokk ndey may moo topp sama kaw moo ma fayal kii lu may wax ñaar yëpp moo ko fay su ko pourtant dafa naan man su ma amee tey ñu may di tiitaru to ñi ma bokkal ndey ak bay newuñu si jàmm kon ak zéro ñoo yem kon comme ni ma ko waxee rek comme ni ma ko waxee tamit yàlla moo ko ko natoo du du buleet kon du lii moo koy yàq parce que defe naa ne comme ni mu koy waxee euh, gënoon na yàgg na ba bésu tey jii te wallahi ba tey kenn gisu ko mu daanu kon comme ni nga waxee ñe ko dañ ko am ñaan waajur comme loolu bokk na si li nga xam ne da yóbbu si kanam kon en tout cas yal na ko yàlla jaamal daal man moom neexul si xol mais ñun tamit doo si tardel sa bopp parce que xam ne kii de du dëgg li muy wax vraiment du dëgg man moom dama ciy taayal sax xoolaat vraiment voilà kon nag ñun tamit ñu koy na ñu koy naan rek Euh, bu mu ci tardel boppam bu mu tontu moom ñëpp ku ko mos a def wax lu ñaaw jëf lu ñaaw ci ay tànkam nga mujjee mujjee ñun ñëpp après gis nañ ko fi doon après bu ñu mujjee si ay baalu si ah na toog rek dana na seetaan ah fan yaa suñu kanam yàlla baax na. macha allah jërëjëf gis nga mu soxna Awa noonu la demee. 500000 la ma njëkk a fay dama ko jàppale woon jamono jooju mais mbiram gën a metti ji nay gën a bari gis nga te nag naa leen wax lenn parfois mu toog. ci tele ak ci rajo yi di fen naan ay di faj nit muy dem di ñëwaat déedéet moom mënul faj xamul faj mënul faj moom mbër la woon di ma sécurité di ànd ak man di sol kilot jéngal doon sama journaliste di ma filmeel tey lu ma dugal mu mu fen mais jinné day ba kii awa ñaata jinne laa génne ci moom kii 2 million la fay. bi de koon ci bopp bi nii la defoo sama bët yi laaj ko sama bët. non non vidéo yooyu yëpp dañ koy euh, insérer ak yi. kii deux kii mill la njëkk fay. balaa daanu woon ñëw sax xool ko nii. waaw kii daaw woon ñëw xool ma xoolal nu mu toll tey te xoola te daawul woon sax am liggéey. non liggéey mënul léegi actuellement dañ ko embauché fenn fu baax. Ah. te man sama barke moo tax. tamit dëgg la kii. parfois dama doon ñëw mu ne ma amagoo liggéey. ma ne ko déedéet mu ne ma liggéey de loolu rek mooy waxam. waaw ne ni moo dafa wàcc liggéeyam ñëw te kii musul am liggéey. stage sax musu ko am bu ma tàmbalee faj ci laa am. waaw gis nga kon xam nga mënuñu ma yàq. dèjà ñi ma faj ñoo ngi ci dëkk bi ñi ma dimbali ñoo ngi fii. du ñoom ñoo may yàq ay sawkatu lat ñoo ngi may saaga nag moom nañu saaga nañu def lu ne seen alku seen alku seen alku Sénégal ngeen seetaan de du xam ngeen ku ne wax na ma. am na ñoo fi saaga woon ay naarak am na ay booy yu mu ñu bëri ñëwaat nañ seen alku seen alku yéen ñëpp ngeen teg ci seen bët man duma ku ñuy saaga duma ku ñuy toroxal même bu dee benn fan liggéeyal naa ko suñu borom duma ku ñuy saaga duma ku ñuy toroxal seen alku toog leen ngeen seetaan gis nga sama fe sama whatsapp photo bi ma ci def nii laa ci mooy seetaan leen mule mule yi di kontaan bu baax gis nga contrat yi ëpp na nii dinañ def li si jinne maag doyen ak Moustapha dinañ gën a yaatal dinañ gën a détail ci kàttanu suñu borom euh, loolu rek laa leen bëggoon xamal euh, booy ànd ak nit ànd toog nit bu ko yàq yow nit ki ba ko yàlla di defar yàlla ba mu koy jox xam-xam yow xamoo ko moom daf ma gis ci youtube mu ñëw ma faj ko faj ko ba mu wér récupérer ko muy liggéey ci sama kër ma koy fay dafa dem nag ba ci digg bi gis million yi di wàcc mu teg ci ay bëtam yéene ma boppam man nag yéene moo ko suma bopp man suma soxna laa yor madame Sow laa ren moo ma déggal muñal ma toogal ma sama kër moo tax jigéen juma ma muñal la mu toogal ma man ah waaw loolu la man nag du ma takk du ma takk ay bandi salté du ma ko def du ma takk ay voyou actuellement moo ngi ci TikTok bi di saaga di xas di def lu ne ngeen xam ne ne démb moo fi nekkoon di ma wax lu baax ngeen xam ne ne kii wax leen ko ndeysaan rek comme ni ma wax mule muley jàpp leen ko ndeysaan ndeysaan ndeysaan maanaam saaga bi may saaga ak attaqué bi du ci am ndam bu soobee suñu borom torox tàngeem day luy luy leer la waaw ah, kay kon nag ngeen xamee ko noonu mbokku juliti mbokku taalibe yi euh, loolu laa bëggoon leeral rek dañ ma naan sëriñ bi bul tontu bul tontu du ma tontu waaye foog ma leeral foog ma teggi tuuma tamee pour ñiy seetaan xam am na ñi nga xamante ne xamuñu ñu sori ñu nekk bitim réew ñu bëgg ma ñenn ñi reeruñu ñenn ñi duñu añ ngir man ndax bu ñu déggee lii dañuy mer dañuy dañuy mer parce que dañu naan sëriñ bi yow yow yow jiwuñu la lii waaye aduna moo demee noonu Sénégal moo demee noonu kër gi bu soobee yàlla yàlla def na jënd naa clinique jëndat naa beneen kër fii ci wetu géej gi alignement bi jënd naa benn kër alignement bi jënd naa euh, macha allah euh, euh, clinique Air Pur 3 defe naa ñëpp gis nañ ko deux cent quarante cinq millions laa ko jënde maa ngi ay terrain yu baax ma dégg muy fen naan ay terrain bu mu amoon virage dañu ko nangu ay nii man fan la ñuy nangoo suma terrain man terrain yi ma yor ay titre foncier la xam nga soxor ak kàcc baaxul manaan immobilier xolam di bon xolam di soxor mu may ignorer naan immobilier immobilier immobilier immobilier dafa nekk jàng immobilier nekkul jàng boo ubbee sa agence immobilier nga ut sa ay secrétaire ut ñi lay demal ci terrain bi yow yow yaa yow yaay dërë dërëteur bi yow yaay signé yaay encaissé loolu kay yomb na immobilier kay moo gën a yomb ci loo gis dafa dégg ma naan damay def immobilier mu soxor moom dafa jàng na génnee bref na kii yam brefem maa moom ñoo yem maa moom ñoo yem man kii laa euh, première laa bàyyee terrain bën bën fii jagsaaw fa laa bàyyee moom dafa jàng moom jàngul day liirantu nii rek dafa xam dara bu waxee nga yaakaar ne ne moo dàq gonfale gis nga fen ci aduna ci monde entier moo dàq fen moo dàq duul booy boobu gonfale rek lay def fu mu toog yàq magam yaayam gërëmu ko tey yaayam gërëmu ko suba yaayam chaque jour day jooy ci moom moo tere dugg ci yaayam kër moo moo tere yaayam teel a dem màkka yaayam ñaanalu ko waaw kay ñaan yooyu ay ñaanu profito la waaye yaayam chaque jour mu ñëw sama kër mu jooy waaw yaayam chaque jour day ñëw sama kër jooy waaw kay kon nag loolu la ngeen xam ne ne nit ku soxor la ku iñaan la day ànd ak su may noon pour xeex ma pour faagaagal ma waaye bu soobee suñu borom ah man duma ku ñuy daan de man yàlla moo ma sàkk yàlla nag duma seetaan kàccoor yi wala yi di ma daaneel te man nit ñi dañ maa bëgg ba pare man forcé wu ma kenn association yi du maa ko forcé nit ñi ñooy dugg ci association yi di am jàmm mu naan xolal rek nga xamante ne kii ku iñaan la mu naan may loo ay nit sama tur kii ku soxar la yow jéemal fexe ñi ñi di wirdu sa tur yow sa mag lu mu teg rek nga nga saboote yow jéemal fexe ñi ñi wirdu sa tur man adduna bi yëpp suma tur la ñuy tudd Thierno Moule Sow ku dem mu jàpp da ngay def ñetti Thierno Moule Sow ku jinne jàpp ñetti cer mu Moule Sow ku am problème ñetti Thierno Moule Sow yow fexeel ñu wirdu sa tur bàyyil soxor ak iñaan lii lii lii moom du jàmm bañ sa mag soxore sa mag doon sa première noon sa mag te sa mag amul lu ma la defalul ci kaw suuf mbokk yi loolu la ngeen xamee ko noonu man rek la bañ waaye bu soobee suñu borom sa xol dina yàgg a bon sa xol dina yàgg a dee di nga soxor ndax man yàlla defal na ma lu may defal ba pare sow munoo dindi loolu yàlla may na ma xam-xam may na ma baatin yow boo amee xam-xam waneel du da ngaa am xam-xam dinaa organiser consultation gratuite ma invité la nga ñëw boo amee xam-xam nga ñëw man boo ma invité sa kër ma ñëw du yow am nga xam-xam da ngay nekk di ma saboote léegi bu gën a leer bi mbokk yi dinaa def consultation gratuite dinañ joxe date bi ak jour bi invité naa ko moom na ñëw moom bu ma invité ma ñëw ngeen xam ne ne kon man du ma moroomam man bu ma invité barki alxuraanu karim ma taal suma oto bu ma woowee fenn ci wàllu faj ma ma ñëw uy si ko damay faj fan yi dinaa def consultation gratuite invité naa ko boo yoree sa xam-xam nga ñëw léegi ñëwal sa mag ngay sóoru ñëwal invité naa la damay def consultation gratuite nga ñëw nga wane sa xam-xam yow da xam dara hmm? yow ndeysaan ndem si yàlla si Jackson nga doon bëreel mu daan la ponkal bu toll ni yow xontu naa la dama la daan fayal ay mayga mayga di la aboneel may ga barki alxuraanu karim sama ñoom yaay sax parfois dañ ma doon mere dañ naan yow loo am kii nga koy defaral temps yooyu maa ngi Tuubaa dama koy aboneel may ga di ko jëndal ay saaku ñebbe ay saaku mbokk ah di ko fayal dibiteurs yi di ko jox l'argent de poche muy lekk ndax temps yooyu mbër la di à passage di nuyu à écrire Lamsaar booy lamsaar yi xam nañ ma bu baax a baax fëgg macha allah moom sa euh, dégg naa moo ngi bitim réew maa ngi nuyu waa lamsaar yëpp Max Mbargaan maa ngi koy nuyu xam na ma bu baax a baax yàgg naa dem ci Max Mbargaan di naan ko suma booy bi dama bëgg a utal ko combat waaw ñoom ñëpp xam nañ ma bu baax nees maa ngi koy nuyu ñoom ñëpp xam nañ ma yàgg naa dem ci ci Max Mbargaan lamsaar di ko naan suma booy bi dama bëgg nga utal ko komba waaw kon tey waaw boo duggee ci affaire sëriñ terewuma la ko. mais doxalal sa doxal mais bul toog di xas sa mag di saaga naan ay simb gaynde jaay ay poto nangam nangam mais temps xale kay jàmm gën jag saaw ku fa nekk gone kay wax dëgg yàlla <laughs> di nga simbantu di nga simbantu temps xale jàmm gën jag saaw boo fa nekkee temps yooyu ndeysaan maa ngi nuyu suñuy suñuy suñuy gaynde yu fa nekkoon euh, ñoom ñoom ñaaw waaw ñoom ñaaw ndeysaan ak euh, damay fàtte sax ak ñeneen dama leen di fàtte ndeysaan man dama bëggoon simb dama daan dem di seetaan yi simb waaw man dama buggoon simb dama doon dem di seetaane ay simb su ma ñëwee kër ga noonu di simb simb noonu su ma yaay di ma tere loolu ku jaar ci xale jaar ci loolu man jaar naa garas mécanicien wax man kay nëbbu ma sama jaar-jaar wax naa nit ñi fu ma jaar tooguma fii rek tëb ne na man sëriñ la wax naa jaar-jaar yi wax naa leen dem naa murtane e, jéem naa dem tukki man kay nëbbu ma sama jaar-jaar ku nekk xale kay jàmm gën jag saaw kay foowee foowee simb moom moom sumb na moom moom moo nekkoon gaynde yi ndaw yi maa ngi fàttaliku fuseau bu xonk fuseau bu rouge laa ko jëndaloon fuseau bu rouge barke alxuraanu karim euh, euh, poto faa laa ko tuddee woon euh, fuseau bu rouge laa ko jëndaloon mu toog mu naan ay simbo loolu yàgg na temps yooyu ñun ay xale lañu boo nekkee jàmm gën jagsaaw ku fa nekk foowee simb ñoom ñaaw maa ngi leen di nuyu ndeysaan ñoo fa daan simb ak ñoom boroo ak ñeneen ndeysaan ñun ñun ñun ñun foofu la ñu màggee ndeysaan waaw kon aduna amul solo àndatoo ak sa mag doxalal sa aduna mais bul toog di xas sa mag di yàq sa mag sa mag wax dëgg yàlla amul temps di toog di wax ci yow sama vidéo yëpp du ma wax ci yow waaye yow saa yoo jógee attaqué ma saa yoo jógee di ma saboté rak doxalal nga bàyyi sa mag gannaaw léegi yow ne nga am nga xam-xam doxalal mais bul nekk nga nga nekk sa noonu mag nag bul fàtte démb dimbali naa la si Kambaaw waa si Kambaaw xam nañ. waa jàmm gën jag xam nañ dama daan jënd oto ñu laaj ma sëriñ bi est-ce que moom oto bi ma ne leen déedéet moom moo oto bi sama booy bi moom moom oto bi di la may bës kon nañu bàyyi loolu man munoo ma yàqal munoo ma yàq man li ma liggéey bu ma aduna bi xamul dootuñu ma xamati li ma wane ci ay vidéo bu ma aduna bi gëmul dootuñu ma gëmati munoo leen tax ñi ñi ñu munoo leen munoo leen ma yàq soxor bi baaxul ex président bi nekk France bi kooku kooku man maa ko dimbali day tooñ ay nit ci gaar ba ma dumal leen ojo yëpp a ngi fi dinañ monter audio yooyu ñëpp gis xam ne ne moom day duul lu muy wax yëpp du dëgg jàppale naa ko guddi jàppale naa ko bëccëg sénégalais yi dañu dafa am ñu si soxor am na ñu baax nag am na dëgg mais bariwul waaw kay waaw nañu bàyyi loolu dina ma naan man man daal dañuy xëy pour yàq ma da ngeen maa mën a yàq yow man ma jaamu yàlla liggéey 16 bi ma liggéey 16 bi ma toog nii ndaw si ma dimbali nga xamante ne nekkul fii moo ngi bitim réew mu kontaan jëndal ma siège bi taalibe yi di ma indil teraanga yàlla dimbali ma nit ñi di ma defal teraanga mais yow fexel say taalibe defal la teraanga man na mu ma ñu jëndal ma oto ku génnee cent onze million dafa faale onze million onze million mooy lan man bu ñu waxoon suba suba munoon naa mun naa tegaat fii cent onze millions yow bu dee ñeme nga am nga dara nañu ko maye nañu génnee maak yow suba ñu génnee cent onze millions maak yow ñu taxaw fii ñu jox fii ba jam ñaajo ñu jox leen njëgu xar tabaski du ñeme nga barki alxuraanu karim soo paree bu dee yow nga ne am nga dara suba génneel cent onze millions barki alxuraanu karim ma génnee cent onze millions ñu toog fii dakaar ba jam ñaajo ñu jox leen xaru tabaski man maa man maa la raw maa la ëpp xaalis ëpp la xam-xam bul soxor rakk rakk sama maa la yar munoo ma jaaxal xam naa la da nga iñaan ba ngay ànd ak man sax bu may may nit wala di defar nit da ngay soxor nit su ñëwee ma koy defal dara sax dangay ngay mer da naan eh bul may ñii nit ñi jaruñu defal dara maak yow yemuñu man yàlla moo ma def may defal ay nit même ñu may war man aw ma problème boobu ndax yow mi ma bokkal boo ma waree su ma keneen waree ndokk laay def man man kon man man wor bi wor bi dama ko maanaam dama ko habité parce que yow yow mi bokk ak man soo ma waree su ma keneen waree loolu dama naan ah alhamdulilah rabbil alamin nañu bàyyi soxor bi ñeme nga am nga xaalis suba nañu génne cent onze millions dakaar jam ñaajo ma jox leen xaru tabaski yow yow dix mille maanaam cinq million bu rond sax mënoo ko génne cinq million rond mënoo ko génne waaw cinq millions rond mënoo ko génne man fu ma toog damay damay toogaale xaalis man du ma sa morom cinq millions rond mënoo ko génne waaw gis nga cinq million cinq cent xaalis day ñëw dañ may jox xaalis fu ne lay jógee waaw gis nga man du ma yow damaa liggéeyal suma yaay liggéeyal suma papa suma yaay ngi dund ajaratu Mariama Kamara te defe naa ne seede yu muy wax yëpp yéen kay gis ngeen ko <laughs> waaw dama liggéeyal suma yaay dama sonn ci suma yaay dama sonn ci suma papa dama sonn ci suma rakk yi sama rakk yi maa nekkoon seen baay faal di daw guddi di daw bëccëg di leen defal lu kon man waroo leen ma fayee lii soo mënatul def ak man jàppal sa njàmbur am nga xam-xam mais waneel résultat fajal nga wane yow sama néeg laa la joxoon ndar ma ne la nga toog xaar ma sama patient yi bu ñu ñëwee woo ma ma ne leen kook suma rakk la waa ndar géej xam nañ loolu patient yi yu ma war a indil xaay bu ñu ñëwee ma ne nañ la jox noonu nga toogee noonu nga duggee ci sëriñ yow amoo xam-xam jàngalu ma la xam sama papa jàngalu la xam-xam da ngaa da gis ne dëkk bi neexu rek moo tax nga dugg ci wàllu faj man nag xaalisu faj laa leen daan dundal nag bul fàtte loolu depuis 2005 ba tey man xaalisu 2007 xaalisu faj laa leen doon dundalee xaalisu faj laa leen doon dundalee kon munoo ma yàq xaalisu faj laa leen doon dundalee demboo démboo jumboor yi wax na ko man côté foofu laa wane su ma xam-xam jàmm gën foofu laa commencé faj di wane xaalisu faj laa leen doon dundalee kon tey boo toogee ne man xaw ma dara nga may saboté da ngaa ñàkk jom rek. waa jàmm gën waa Sika Mbaaw ñoo waroon jog dal sa kaw parce que xam nañ ne yow li ngay wax ay fen la ay kàcc la parce que ñoo waroon ñoo la waroon démentir parce que waxoo dëgg kon nañu bàyyi loolu kon nag mbokk yi euh, du question dama mer wala damay leeral kese parce que xam nga Sénégal su nit ñi waxee boo tontuwul rek day am ñi nga xamante ne dañuy jaaxle loolu kese la maa ngi happy maa ngi free Thierno Moule Sow damaa ngi kontaan gis nga fan yi sax damaa am forme parce que damay commencé naa waat naa sport bi commencé waat naa taekwondo bi macha allah fan yi gis nga ko dama am forme bu baax boo ma gisee may dox sax dangay xam ne fan yi aw ma stress macha allah bu ma liggéeyee wàcc maa ngi suma njaboot aw ma xarit aw ma àndandoo waaw su ma heure sport bu jotee ma sol su yére ànd ak su ma ñu dem ñu def sport man aw ma man aw ma aw ma temps di wax man téléphone yi rek ñoo ma jaaxal ndax nit ñi dañ may woo fu ne duñ ma mun a jot am na ñu may woo ñaari at am na ñu may at duñu ma jot kon ñii aw ma aw ma seen temps ñii dañu am temps toog di ma yàq dañoo def association ànd yàq mu Moule Sow waaye yàlla moo leen di contre man mënoo leen ma yàq kon nag sant nañu leen gërëm nañ leen di jéggalu bu baax a baax di ñaanal ñëpp jàmm euh, juste rek ma leeral pour ngeen xam ñoom duñu ma mun a changer ci kattanu suñu borom li ma war a def dinaa ko def incha allahu tabaski bii dinaa maye xar bu soobee suñu borom man kenn mënu ma yàq na ma ñëpp war waaye xol bi yàlla def ci man def na ko rek ci man soo pullo man munu ma bon man na ma ñëpp war waaye saa yu ma xëyee dama leen di defal teraanga loolu la ma yàlla jox kon man naa la defal sax léegi léegi nga génn war ma loolu lijjantiwu ma loolu ndax defuma ngir yow man bu may def suñu borom laay def ndax 11 millions 111 millions ku ko génnee defe naa ne nee naa soxlawu merci soxlawuma ma jërëjëf kon man du doomu aadama moo tax may def man yàlla moo tax may def ndax xam naa doomu aadama doomu aadama bu bu sonnee mën na la waxal lu ne. bu ba bu demee ba regg fàtte kon man xam naa doomu aadama waaye dama xam ne doomu aadama motul nit motul moo tax man defuma ngir nit damay def ngir suñu borom waaw kay kenn mënu ma fay ndax ay temps ñoo ngi naan kër gi fii Éthiopie la woon n'est-ce pas Alseeni xam nga fii man lu ne wax nañ fa nee nañ kër gi dafa woo Éthiopie nit ñi dañuy ñëw nee naa la bu nit ñii ñëwul jinne yi ñëw komin woni ngaari jinna dawnondi yaade yeehi artiri jippori o duɗal haɓɓi hunnduko ceernaɓe ɓen haɓɓi hunnduko ayeɓe ɓen nano e ñaamo funnague hirnague pullo e kaaɗo paykon e makko ba debbo e gorko kenka tarma ker lépp yalla ak yonente bila kon nag sant nañ leen bu baax gërëm nañ leen boo gisee juste ma wax dafa jot ma wax ndax ñoo ngi def ay ojo ñoo ngi def ay tiktok di ko wër di ko tasaare aduna bi di ko wër aduna bi pour pour jéema ma yàq man nag mënuñu ma yàq li ma liggéeyal Sénégal li ma liggéeyal yàlla ak yónnente bi defe naa ne loolu moo ngi ne fang ne dang xool leen ancien vidéo yi soxna si avant muy ñëw fii xool leen ñi ma faj soxna si barki Dembo Ndiaye la fi ñëw motul deux ans kon kii su ne dama koy fay muy daanu yàggoon naa dégg loolu ñun déggoon nañ ne Thierno Moule day fay ay nit ñuy daanu loolu yàgg nañ ko dégg moom moom bu ko waxee dañ koo déggaat keneen dina ko waxaat soxna Awa ngi nii toog dinañ leen won ancien vidéo mi ak vidéo mi ngeen xam ne ne kon aduna amul solo yàlla mooy maye. am na nag ay walaakaane tamit yi ciy profito di ma saboote man nag amul benn problème euh, am na nag ñi nga xamante ne vraiment xam nañ ne lu may def yàlla moo tax may def man sama xol dafa sedd ni glace aw ma stress ay clinique yi baax sama njaboot la ñuy fajo su yaay bu feebaree clinique yi baax laa koy yóbbu maa ko yor guddi maa ko yor bëccëg maa koy dimbali waaw kay fii laa jëndal sama yaay oto mu fen ne sama yaay dinaa la jëndal essence dinaa la jox deux cent mille ba tey joxul suma yaay deux cent mille calculer loolu fii laa bëgg a yóbbu sama yaay màkk mu ne mu muy njëkkante ak man mu ne day yóbbu fii la wax day ubbil sama yaay bitik ba tey mënu ko ubbil bitik moo ngi noonu nee naa ko Camara toogal dinaa la dugal ci kër ndax kër gi ma njëkkoon jënd tabaxal la moom moo tax ba duggoo ci kër googu si Kambaaw waa si yëpp xam nañ loolu dama jënd kër tabax ko ba mu rafet won yóbbu fa sama yaay won ko samay nijaay mu joteeg su may rakk mu ne mu ne mu ne ñooñu mu ne sama rakk yi bu ñu duggee ci kër gi du dugg ci kër gi noonu la def noonu la def temps yooyu ndeysaan dama koo bëgg lu mu wax rek ma ne waaw ànd ak moom mu fexe ba ma jaay kër googu waaye yàlla may na ma ay kër yu bëri yàlla may na ma ay terrain fi nga nekk kamar man maa la fayal foofu un an bu soobee suñu borom balaa loolu di jeex incha allah dinaa la dugal sa kër kon nag ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm macha allah di ñaanal ñëpp jàmm di jéggalu nag taalibe yëpp sëriñ bi se normal mu leeral pour aduna bi yëpp xam problème bi lan la problème jalousie la rek jalousie la rek booy bi maa ko yar maa ko yar ba mu màgg mu gis ne maa ko ëpp wërsëg rek mu teg ma bët bañ ma képp ku nga xamante ne jote naa ak moom mu kolaa bare ak yow calculer le loolu loolu rafetul aduna amul solo sa mag même bu dee benn fan dimbali naa la jàppale naa la guddil naa la bëccëgal naa la sa doom yëpp maa leen ngénte waaw kay kon yow lan laa la def yow man defuma la dara yéegal nga kalaame yàlla wërsëg bi kalaamel yàlla xam-xam bi kalaamel yàlla mais bul toog di yàq boo toogee di fen bu ma waxee big mu ne big bi baaxatul xam nga lan moo tax ma arrêté produit yi dama gis ne nit ñi dañuy jënd produit yi euh, di ko jaayaat moo tax ma arrêté mais man nit ñi dañ fi rang di jënd man maa ne arrêté na te suba suba bu ma neewaatee damay jaay cuuraay bi ak vite fait bi ak kii gars yi daw ñëwaat dañu bàyyi loolu soxor baaxul jalousie baaxul sénégalais africain seen défaut leel na la damay ànd ak yow yow wax su ma àndut ak yow ma yàq la man miin naa ay war ak ay jaafa ndax ci yow yaa ma njëkk a war ko bokka ndey ak baay bu la waree su la jàmbur waree bu mula la metti gis nga ñi nekk ci kër gi yëpp su leen neexee ñu war ma loolu seen affaire la du tee man li ma leen war a defaral dama leen di defaral ku ma ci war a jàppale dama lay jàppale ku ma ci war a dimbali dama lay dimbali waaw man xaaruma kenn te man yaakaaruma ci kenn dépendre ma ci kenn ku dul yàlla ki ak yonente bi ndax ba may def lii ñoom ñëpp xawma leen dañu ñëw gis ma may faj ma jël leen yàlla boole ñu ñuy liggéey kon ku dem ba wan ma ginnaaw du ma la lijjanti waaye yow dem nga wan nga ma ginnaaw di ma lijjanti mu le këram ñetti nit ñoo fay nekk wala këram na fay wala nii naa soxor boobu mooy lan yow yaa ko sàkk yow danga ko faawoon de danga ko gisoon ci youtube bi moo tax nga ñëw këram nañu bàyyi soxor bi man sama xol a ngi féex sama xol a ngi glace parce que sant naa yàlla damaa toogaale waaw maa toogaale nit mënu yàq kon nag macha allah après tabaski grand grand euh, kii consultation gratuite incha allah euh, képp ku yor jinne bu soobee suñu borom incha allah dinañ ñëw jërë ngeen jëfoon jaaraama albarka. thank you merci I love you all thank you.